maam alaaji saalum maam alaaji maas ba ñoo ko fondement ndaw fondement bu maam alaaji saalum maam alaaji maas ba ñoo ko fondement ndaw fondement bu rëy cheikh alaaji baaboy xalifatu baay bi ci ndukku man man biram em na ma daarul muhibbiina dugul maa ko wëy ka moo leen njëkkaa wëy cër laa ilaha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 xutbu samaan feeñ na soodaan sidi barahama majmuxul bahrayni barahamu géej gi mbambulaan xutbu samaan feeñ soodaan sidi barahama gaaw ku ci bañ a xalaku dee ci gàcce mbaa torox génn mbooloom sidi barahama xet woo mag wi dal na tëdd leen ku ci weddi da nga xalaku borom ngir mi ñëw na soodaan sidi barahama xadaratul kursiyu ku fa dem xam ne yàlla mooy buur dootuloo gis mbindeef maaheem sidi barahama xadaratul kursiyu ku dem xam ne yàlla muy buur qul wallaahu doy na xaatir sidi barahama xadaratul kursiyu ku dem ba jënoog jëmmi pey ba billaay walaay dangay ngelemaan sidi barahama mboolem xaalam yecca mulku yecca malakoon alam bo fi tolle jennok sidi barahamang alam banga boho boxoo ku dem yarang dawlu wet kabal mangi kambe sodan sidi barahama janu balen pese lay handana de kulo sodan pese bele tuse sodan sidi barahama janu balen peese lay handal ɗe kulo soɗan peese bele ɗuse soɗan sidi barahama abu yesid bustani barahama kombal mun ko garde malawlahla sidi barahama abdoukadir jaylani bagdad barahama wahyu jesgu banko fekka bagdad sidi barahama ku ma weddi xam nga raga xol warlu naa nga de ci gàcce mbaa nga torox génn mbooloom sidi barahama amina amina ku ne amin yàlla na ngay xaas nangu leen ñaan gi may ñaanaan ahlu barahama amina amina ku ne amin yàlla na ngay xaas nangu leen ñaan may ñaanaan ahlu barahama yàlla buñ yàqu yàlla buñ yàqule yàlla buñ huñi mbóot nañ dee ci bay ñaas sidi barahama yàlla nañ bokk ca kuréel bu njëkk ba da ànd ak keroog yow ma yuba suunaay gaañi barahama yàlla nañ bokk ca sukkoowe sa jëmi eli hina keroog buñ fa réeroo sidi barahama anqaawu yaa ñoom ca ahlu ruusi tuuti kon ñu jeex anqaawaay na ci majum sidi barahama anqaahu jàpp nañ ak jurul ga dal di xoolee doomam ruusi xaw na ñooy jeex sidi barahama ba deega méttee antalata ibnu shafwan mer ba dal di dem ceppi ba dal di téléphone sidi barahama anta la tànkonaan wallul balaa ñaaw ahlu ruusi ngi ñi suuxaan sidi barahama laahumma salli ala sayyidina muhammad al limaam سبغ ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل الحق قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لمن أغلق ولقاتم لما سبغ ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل الحق قدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق من لما سبق الناس الحق بالحق ولا عادي إلى صراطك المستقيم وعلى آدي الحق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شق العاج باب ويقليفة باي بيت تبير دكم من من برم إنما دار المهدين دخل ماكو ويمن منك مولن جكاوي way cor ya la baax